ferñeentum azote ferñeent bu am doole lool ci gàncax gi wante nag feeñuwaay yi muy ñëwee ci gàncax gi ak seen doole wuute na moo tax nag ñu bëggoon am waxtaan wu gàtt ci loolu. ferñeentum azote moom la ñuy màndargaal ak bind bi di enn ci saaku engrais yi moom nag fii ci Sénégal li ëpp ci liñ koy jëlee mooy engrais bii ñu naan urée. engrais bii du urée nag soo ko sànnee ci gàncax gi du léegi léegi la gàncax gi di jëriñoo ndax ni mu bindoo la dafay laaj ay conditions yu mel ni tooyaay bi ak muy mel ni température bi tàngaay bi wala sedd bi ak yenn xeetu gunóor yooy xam ne ñoo ne ci suuf si ñooy togg boobee ferñeent ba nga xam ne gàncax gi dina ko jëriñ boole ci tamit dina tax suuf si xaw gën a lewet ci ay jamono moom maanaam mooy lu doon woowee pH buy yokku am na beneen yoon boo xam ne moo gën a gaaw te xam ni. gàncax gi dina mën a jëfandikoo ferñeent bi yooyu xeetu engrais la ñuy woowee azote nitrique mandarga bi moom mooy nitrate NO3 moins di ko fekk ci nitrate de calcium nitrate de potasse nitrate de magnésie ñi nga xam ne dañuy jël engrais di ko xóoyal di ko jaarale ci goutte à xeetu engrais yi la jëfandikoo bu ko defee gàncax gi dina ci mën a jëfandikoo lu bare wante tamit ferñeent bi day gaaw a dem yoonam. bu ko defee su fekkee reen bi tàlliwul ngir dem jàpp ferñeent bi ci lu gaaw ñàkk gi dina bare loolu ndax am na loo xam ne day rot jaar ci suuf si dem ñetteelu yoon wi nag mooy yoon wi diggu dóomu moom lay ni woowee azote ammoniacal nga xam ni màndarga bi mooy ammonium NH4 plus ci mbind bi moom nag li nga xam ni sànni ci wetu reen bi moom la gàncax gi di mën a jëfandikoo ci lu gaaw am na loo xam ne day jël ay condition yu muy laaj ngir gàncax gi mën na fekk gunóoru suuf yi soppi boobu yi eh, amuñam soppi ko ba nga xam ni gàncax gi dina ko mën a jëriñoo kon gunóor yeeg jaanu suuf yi xam ni liggéey bi ni liggéey day jël ay bés ak wala ay ayu bés looloo tax gàncax gi dina bénéficier ci engrais boobu ci diiru jamono gën a yaatu gannaaw nag gàncax gi ci bés yu njëkk yi ak weer yu njëkk yi nga xam ni samp nañ ko ci lay soxla ferñeentum azot looloo waral ñu indi leen bii engrais foliaire tudd CHO plus basis moom nag li ko liggéeyee mooy thiosulfate d'ammonium soo déggee loolu moom mooy soufre la bu nu boole ak azote soufre yéen a ngi fàttaleeku ni ay na loolu ci feebaru xob yi wante tamit soufre dina dimbali gàncax gi ba mu wàccaat ci pH bu diggu doomu doole ji nga fay fekk bi mu koy indil nag mooy tax gàncax gi dina mën a mobiliser yeneen xeetu ferñeent yu mel ni soufre yu mel ni fer manganèse bor molybdène yooyu ay yeneen xeetu ferñeent la yoo xam ne su ñàkkee ci garab gi rek feebar da koy yomb lool maanaam gàncax gi day mel ni nu xiibon wante ni nu liggéey azote bi tamit dina dimbali gàncax gi ba nga xam ni dina mën a soppi yeneen xeetu azot yi nga xam ni ñu ngi koy indi ci suuf si ngir mu mën ko gën a jëriñoo kon bii la engrais foliaire di Thioplus basis bu leen ko fàtte soo leen di samp seen gàncax nga xam ni semaine yooyu urée ngeen di soxla ngir xob bi tàlli rafet te aar gàncax gi ci ëllëgam moom nag dose bi comme d'habitude quarante millilitres par pulvérisateur de seize litres maanaam kaasu witu ataaya bi rek moom ngay def ci mbàndum pulvérisateur de seize litres. yii produit ñu mucc ayib nag. sol moo koy indi fii ci Sénégal ñoo ngi koy jaay sunu boutique bi nekk Ndar ak bi nekk Kaolack kon woo ñu ci ni mu gën a gaawee xarit.